jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax a baax a te xam ne seen mbégte lekk mooy suñu yitte CCB nag du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne nee ngi ci ba tax na ngeen gën see jàpp te xam ne seen yëf la ñu ngi nuyu nag bu baax a baax yi diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ñooy aar daara waaye du muy waa Jamra ak ñi nga xamante ñooy aar jikko yi waaye duñu fàtt suñu mbokki bopp suñu doom ya nga xamante ni ñu ngi fépp si àddina bi ay doom yi Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di soññ nag gouvernement bi mu taxawu leen seenu nekkin ñi nekk bitim réew gépp ba seenu nekkin mën a ñoŋ ñu xamante ni fépp fu Sénégal àgg rek ñoom seen loxo nga ca biir muy muudu muudu yi ak faatu faatu yi jërë ngeen jëf baykat yeeg sàmmkat yeeg nappkat yeeg duñ leen fàtte waaye ñi si marché it ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax waaye suñ mbokk yi nga xamante ni ñooy takk der yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax si seen taxawaay ci réew mi rafet na lool nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax te gën a jege askan wi gën leen a xamal ne ñun ak yéen bokkuñu ñun dañu ñoo formé li ñu leen di jàngal ñoo ko xam yéen xamu leen ko kon ñu leen si wax yëpp ngeen daal di koy nangu bu ko defee jàmm mën naa am kon nag mbokk yi li ñu indiwaat tey jii eh, seen xarit Baye Assane Mesere takkusaan gu jot mu ñëw jàkkaarloog yéen tey jii dina dem Dubaay fekk fa président Macky Sall ay kàddoom mu wax naka la ko gisee waaye ki nga xamante ni mooy Guy Marius bàyyi nañ ko euh, téye gi ñu koy téye taxawaayam ci réew mi niñ ko gisee waaye lii nga xamante ni mooy mairie yi ñi ko soxla ban gis-gis lañ si amee waaye nag newetaan yi euh, duñ si ñàkk a dugg incha allahu rabbi newetaan yi am incha allahu rabbi dinañ si laal léegi. loolu yi nag bala ngeen koo am da ngeen ànd ak uh, ki nga xamante ni moo ñu gunge muy bitigu solution wala boog pharmacie solution mën nañ koo tudde noonu yi ndax ab ab pharmacie solution dafa ñëw pour régler situation yi nga xamante ni amee na si feebar yi waaye régler situation yi nga xamante ni am na diggante ñi nga xamante ni ñooy jënd ak ñi leen di jaay pharmacie solution dafa ñëw pour décanter situation yi nga xamante ni mi ngi ciy am ki am initiative bi nag di Alaaji sa Njóogu Mbeng ànd seeg doomu ndeyam Sohi bu Jóob ginnaaw ba nga xamante ni ñu ngi publicité ay sëriñ ba li si xew xew si ñoom ñu daal di jóg taxaw taxawaayu régler situation bi ba nga xamante ni képp ku jëlati sa xaalis joxe ko ngir faju da nga mën a faju ba saw yaram wér si kàttanu sunu borom moo tax ñu daal tijji bitig boobu yi ñuy jaay nag hémorroïde képp ku ko amee hémorroïde képp ku ko amee si kàttanu yàlla bu dee hémorroïde kese boo jëlee seen garab bi da nga tàggoog moom ndoxum siti képp ku ko amee bu dee ndoxum siti kese da nga moom waaye bëñ buy metti boo ko jëlee suba jël ko ngoon bu ànd ak borom bopp da nga tàggoo ak moom waaye li nga xamante ni mooy âge pour yow mi jigéen dinañ la jox traitement bi boo ko diwoo rek booy tëdd da ngay diw diw fii diw fii kartunu yàlla dangay ngay jekki rek mu sensé ñaan laa ah yow mii de fan yi moom fekk yaa nga ca sunu pomade yooyu Alaaji Saa Njóogu kon jërëjëf xam naa ni bu jóg dañuy dem ànd jeeg bitigu solution mi ñu gunge tey ji seen xalaat bu ñu dikkee dugg ci waxtaan wi incha allah bu jóg mbokk yi jaaxle jeex na solution juddu na ci diggante réew yi ma leen di bëgga a tuddal seen buti solution gën na leen a jege yéen ñi nekk ci biti réew waawaaw waaw déglul ma li ma la yéen ñi nga xam ni yéenay xaar butik solution ci biti réew ci seen ñetti garab yi ngeen taamu fii ci solution emori bu tëw a wér ndoxum siti mu tëw a ak góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Daxla bu dee ca Dubaï Daïra ngeen mën faa fekk produit yi butik solution di jaay di nga mën a jot soxna ummi wootee appel normal boo ko jutul bàyyil ko message whatsapp bépp produit bu ñuy jaay fii ci boutique solution ci Sénégal man ngeen koo am ci réew yi ma leen tuddal bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Dakhla bu dee ca Dubaï Daïra da ngeen fa fekk produit boutique solution alaaji Sanjoogu Mbeng soaay bu Jóob mi ñëw ngir régler situation yi yéen ñu doon jaaxle ci yónnee fii ci senegal yéen ñu doon jaaxale ci diggante GP yi mbokk yi mbaa fàttewu leen garab yi ñuy jaay soo ci bëggee am yu wóor yu leer naññ da ngay doxantu ba solution jàmbat hémorroïde bu mënta wér jeex na ndoxum siti mu mënta wér jeex na góor guy gaaw a yegg ci kaw lal jeex na ak seen boutique solution bu leen ko fàtte nag boutique bi xoojul jàmbul listaxaarul seetul su ngeen bëggee digg digg daal fii rek ngeen di wéree. waaw kay jërëjëf soin bu Diop jërëjëf bitigu solution nekk à face wal fajri bu ngeen ñëwee ba foofee waaye balaa kenn ñëw na woote bañ wax ko naka lay demee mu doog dal di ñëw waaye nag boo xëyee rek. Euh, ndaysaan naan su kaasu kafe daal dem si pharmacie solution ni lii laa bëgg te it woote woo mën ngaa am ay nu mu tuddati kon balaa kenn déplacé wu na woote ba jot doog a daal di déplacé woo këram ñëw pharmacie euh, solution ñu jox ko li mu bëgg mu daal di mën a dellu këram faju daal di wér si kàttanu sunu borom. sony bu nag tey jii dañuy dem ba Dubaay fekk fa président Macky Sall yëkkati fa ay kaddu yoo xamante ni mën naa ne kaddu yu mbetteel la waaye kaddu yoo xamante ni kaddu yu xeeb boppam la te it macha allah fa mu toll rek foofa la waxee. ndax tey ji bu demee ba Dubaay mu naan Sénégal dinañ roy si Dubaay si wàllum set ndax buñ taqee duñ sax am ñu ñëw si wàll ñun lijjantiwuñ ñooña xooluñu Dubaay lijjantiwuñu leen ñun ñun suñu Sénégal gi lañu xool bëgg ku ñu ko defaral moom daa waroon a defar dëkk bi ba ku ñëw si dëkk bi xemmem ko waaye taxawaay bii nga xam ne amee na ko si dëkk bi Gàmbi gii sax xemmewuñ Sénégal bu demee nag tey ji bu naan dinañ delluwaat set setal ga loolu rek waroon na koo mën a rus a wax ndax seet seetal moom moo taxawoon ci ci ci corona bi ni marché yi dañ koy tëj bis sàngam ak bis sàngam dañ koy seet seetal te jamono jooju yi marché bi bu ñu koy dee seet seetal kàmb yi nga xamante ni mi ngi ci biir marché yi du maire dañuy dox di fakkastalu daanu ci daanu si marché yi rek ndox mi di taa kàmb yi taq-taq yi salte yi loolu lépp wanag yi xaaru ci lenn lu dul lay génn sa marché bi ñu mën ko def ci seen poos jéemuñu dara ci marché yi kon nag bu ab dëkkam taqee ab dëkkam tilim moom moo mënul soo mënul dangay bàyyi waaye nag buñ ñu ko teg waa Dubaay dañoo am njiit yu baax waa Dubaay dañoo am njiit yoo xamante ni dañuy génn seen xaalis di ko def sa dëkk ba lépp lu ñu am dañ koy defaree seenub dëkk ba seenub dëkk mën a rafet waaye nag yow bu fekkee ne alal ju ngeen am séddoo def seen poos wala ngeen dugal ko foo xamante ni du farata dëkk ba tax ngeen bëgg ko jiiñ seenu askan da nga leen di nax te Dubaay ña fa nekk ña nga xam ñoo njiiti réew yi dañoo dooleel ña fa am xaalis ñu daal di tijj ay usine jël seeni ndaw ñu dem liggéeyi ñu tijj ay marché yu yaatu képp koo xam dem nga jëli dara boo ñëwee ñu yombalal la ko nga jaay si njëgu xéwale tëli yaatu lépp yaatu waaye fii képp koo xamante ni nii na bër bër bër jéem a jóg bu ënt ak yow nga damm ay laafam société am tëj nit ñu duñ am fuñ liggéeyee ñu daaj taabul teg si mbedd mi ñooñu boo leen fa jëlee da ngay sonal seen bopp rek booy saa njóogu yi dong la boo leen jëlee si si mbedd yi ñu lal amuñu fu ñu jëm dañuy toog si mbedd yi di attaaya boo leen jëlee mécaniciens yi fu ñu nekk si mbedd yi amuñu fu ñu jëm dañuy toog di naan attaaya ministre bu boo leen jëlee si mbedd yi amuñu fu jëm dañuy toog di naan ku toog di naan attaaya nag boo kenn rombee di daw dina daw topp ca xool lu muy daw su boobaa bu foree xeer lay am xam nga ko kon bala ngaa wax kenn dañ ko jëlee si mbedd yi danga leen di wutal fu ñu dem ba pare boo leen jëlee fu ñu dem nga jël leen fa yóbbu leen fa defal leen fa lépp loo xamante ni war na faa nekk jox leen ay moyens ñu toog liggéey seenum réew rafet ndax président kenn bëggut a taq ñun ñoo la gën a civilisé foofu gën laa bëgg set waaye amuñu moyens yi yow nag mais am moyens yi defoo ko ci réew mi kon nag boo demee ba si muy nga naan taqaayu Sénégal ku fa bëggut a ñëw ñooñu bu bëggut a ñëw nañ toog ñoom la loolu nga defee woon Dubaay sax daanaka mën nga ko defe fii voilà kon kàddu yooyu nga xamante ni yëkkati woon nga ko foofu si Dubaay sax dañ war a jéggalu ñun ndax sunum réew lépp lu ci am yow la da ngaa waraan taxaw ni ah man nag wax dëgg yàlla maa ngi jéggul ndax Dubaay gi ma fi ñëwee ni mel ak sama réew mee na mel wax dëgg yàlla liggéeyu ma liggéeyu ma de ndax boo doxee tuuti àll bi amuñu poste de santé amuñu yoon amuñu courant amuñu ndox ñu dañoo talu set da ngaa war ne su ma àggee la wër suma palais ba dinaa ko defar ba mel ne Dubaay li wër palais bi dinaa ko defar ba mel ne Dubaay loolu nga war a wax mais Sénégal moom mënut mel ne Dubaay loolu moom faat na du si yow lay du si yow lay mel ni Dubaay du si sa morom lay mel ni Dubaay loolu mënut ta nekk ndax ñi fi jiitu dañoo liggéeyut yow nga ñëw liggéeyoo kon mënut a mel ne Dubaay ku xam capital bi kese nag war ngaa yaakaar ne war naa mën a ne waaye ku génn ak jafe-jafe yi si àll bi nga naan Sénégal mel ne Dubaay déedéet da nga naan capital bi biir Ndakaaru noonu waxuma banlieue bi de capital bi mel ne Dubaay loolu ngay jéema a liggéey boobu président Macky Sall loolu mën nañ see ànd ak yow beneen bi ki nga xamante ni mooy Guy Marius jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy am digganteem ak yoon bu teyee ñu jàpp ko bàyyi ko bàyyim néegandiku teyee ñu jàpp ko bàyyi ko bàyyi bàyyim néegandiku ah léegi nag naka lañ war a def ba xam Guy Marius Sagna mii Sénégal yi muy xeexal Sénégal yi muy xeexal euh, lan lañ ko war a delloo ak ban taxawaay lañ amee ci moom ndax it man bu ma ko dee seetaan par rapport ak ñeneen ñi moom buy wax xaj na li muy wax dana ko kalkin te day wax ndànk wax si yar beneen bi bu doxu ñaxtu amee dana dem si yar dana wax si yar kon lan mooy problème moom digganteem ak gaa yi jàpp gu bare gi ñu koy jàpp. léegi nag loolu ban ban responsabilité la si ndaw ñi war a am mooy gone Sandiog yi bu ñu jàppatee Guy Marius Sagna maanaam ban responsabilité lañ si am ndax Guy Marius Sagna man ñeneen plateau yi may seetaan damay seetaan benn waay boo xamante ni la muy wax Guy Marius Sagna bu ko waxoon te jii ñu jàpp ko ndax gaa yi dañ koo nen. mais am na si ñoo xamante la ñuy wax lu leen neex te plateau yi la ñuy wër man xaw ma jàngalekat yi élèves yee leen di kaasa ko mënum demee noonu duñ leen wax dara mais ji mari sagna fu mu nee bërét la ñu jàpp dugal si kasa bi ram waay ram waay ba mu def fa lu mat un ñu ne ko bàyyi nañ la bàyyi dem néegandiku loolu day xaw a metti torop kon gouvernement bi nañ ko jàppale yërëm ko te xam ne kii da leen di jàppale ndax lii muy dénoncé saa bu dénoncé rek dañoo war a xool lii mu dénoncé lan moo say ñu saafara loolu rek moom lañ war a def waruñoo def leneen tey ji bu ñëwee ni fii dafa amu kàmb nañ dem maasale kàmb ga loolu rek mooy saafara si tañ bàyyi jàpp gi nga xamante ni ñu ngi ko koy jàpp ndax wax dëgg yàlla moom Guy Marius Sagna moom bokkut ak ñun ñi nga xamante ni ah àll la ñuy waxee ak tàngoor wi ñu yore moom bu yoree tàngoor it wanewu ko beneen bi ñu dellu si mairie yi mairie bi képp koo xamante ni mi ngi laaj mairie na jàkkaarloog yéen ni leen bu ngeen ma joxee mairie bi bu fekkee jëlagut bu ngeen ma joxee mairie bi dinaa def lii ak lii ak bu fekkee ku ko yoroon la mu ne bu ngeen ma joxaatee dinaa dolli lii ak lii ak lii ngeen xool moom moomu laajaat digganteem ak yéen laataa trois mois si ginnaaw wala at si ginnaaw ndax daa ngeen ko gis ndax daana ñëw si yéen comme ni muy saafonteeg yéen nii di dugg si marché yi di di kaf di fo di ree ndax mois si ginnaaw wala ndax at si ginnaaw daana def loolu te léegi gis naa ñëpp ñu soxla mairie yi ñu ngi wàcc si terrain bi di kaf ak nit ñi di reetaan ak ñoom di naan attaaya di naan caaf wala boog di yëy caaf loolu lépp daawuñu ko def te léegi ñu ngi koy def kon nag Sénégalais il faut ngeen yeewu képp koo xamante naa mi ngi laaj mu leer nañ leen kii bu ngeen ko joxee moo koy yor yëkkati leen ko ngeen jox ko ko mu liggéey waaye nag man li may bañ bëgg ngeen bañ le ma ko bëgg ngeen bañ ko ku ñëw ni leen jox leen ma mairie bi ma defar ko bu ngeen ko yëkkatee jox ko ko na ko yor bu mu ko jox keneen bu leen kenn yekkale bu leen nangu kenn di leen yekkale bu fekkee nit ñi bu ngeen ñëwee ma yóbbu leen ngeen ànd ak ma mu dem ba fenn mun ne kii moo leen di yóbbu ka leen di yóbbu falu leen ko woon moom ngeen fal ki ngeen fal jox leen ko mairie bi mu yor ko bu ko mënul na ko bàyyi waaye jox leen ma mairie bi bañ jox la mairie bi nga dem joxaat ko keneen dem tëddi ndakaaru di naan ay attaay ak yow nekk fa la ko neex moom it ak di rawale du liggéey liggéeyu dara ku mënut na nga teel a wax ni man de du ma yor mairie bi bu ngeen ma falee kii kii lañ fi teg moom àndal moom la ñu campagnal jàppale leen mu leer waaye fal la ma bañ fal la nga dem fal feneen keneen loolu rafetul nañ ko moytandiku si réew mi loolu doxalut am réew loolu lañ si doon wax beneen bi ñu dem si nawetaan bi son yi bu jóob nawetaan yi nga xamante ni mi ngi am mënuñu see ñàkk a wax ñi nga xamante ni ñoo koy tëgg xaw ma nu ñuy tëgg nawetaan yi xaw ma nu ñuy boolee équipe yi waaye li gënoon a rafet ak li nga xamante ni mooy ëpp jàmm tey jii boo demee Tëngéej nga boole kook euh, waa Midina Tëngéej Midina war nañoo mën a fubal wala nga daal di jël euh, parcelle boole ko faas comme ni ko làmb ji defee mais lan moo tax làmb ji ñi ni waa Pikine ni duñ bëre waa parcelle ni duñ bëre waa faas ni duñ bëre waa ndakaar ni duñ bëre mais lan moo tax newetaan bi benn koñ benn koñ nga xamante ni kër gii euh, kii bi nu mu tuddee capitaine bi di dëkk si kër gi kër gi mu taqalool góol ba dëkk sa bokk si équipe B capitaine bi bu bokk si bokk ween ñoom ñuy fubal Ah, bu max bi jeexee ñu war a ànd aw yoon di ñëw di xeex ba ba ñuy egsi xeex rek ba ba ñuy egsi di xeex di sàcc xeex ak sàcc la ñuy def ba ba ñuy xeex sàcc ba ba ñuy egsi nawetaan bi ñii buñ leen gañee dañuy mer di saaga di xeex di sàcc di xeex di sàcc ba si ñii buñ gañee dañuy kontaan di di di reetaan di fecc di tuurooy ndox di sàcc ba si kon jàmm mënut ginaaw ginnaaw boo kontaanee sàcc xeex fo trian buñ la gañee nga mer sàcc xeex gaañ kon léegi lan moo si pexe mooy équipe yi bu ñu leen dee booleeti nañu xool koñ bu nekk ñu booloo ñoom waa koñ boobu doon équipe dem fubali jéeg beneen koñ waaye benn koñ buñ nangoote ñu leen di boole xam naa loolu dinañ si dikk danañ si dalal benn expert mu ñëw leeralal ñu affaire euh, nawetaan naka la war a demee même yéen si commentaire yet képp ku si am xam-xam mën nañu seet leeral affaire nawetaan ndax nawetaan bi daal ni muy amee man neexuma dara dara nañ def ni mbëri waa Pikine nañ xam ne ñoom duñ bëre waa Fass duñ bëre waa nangam duñ bëre waa nangam duñ bëre bu ko defee jàmm mën naa am buñ fu balee pare ñii aw ni ñibbi ñii aw ni ñibbi mais bokk fu ñu aw di xeex ba ba ñuy egsi loolu rafetul kon nañ si daal di taxaw fexe mu daal di dakk lii lañu ñu andi woon ki leen si doon gunge di bitigu solution ah, gaaw leen woote si numéro yi képp koo xam ne yaa ngi fay dem ñu ngi à Fass à Fass Walfadjri waaye bala ngaa dem na nga woote ba jot bañ wax la ni muy demee nga doog a déplacé wu dem jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba suba incha allah. mbokk yaa ngi bàyyee xel seen bu am solo lu jëm ci wàllu information lépp loo xam ne dafa jëm ci alerte wala lu ñu war a dénoncer ci réew mi lu jàdduwul fii ngeen koy amee ci seen GCB soo bëggee am bépp vidéo bu fi jaar fii ci GCB bësal cloche notification bi moo lay man di may nga am bépp vidéo buy jaar fii ci GCB taxaw ci alerte ak ak génn fi mboolem loo xam ne ayib la walaw ñaawteef ci réew mi